Fall 94 Fall 94 Walfu Sénégal seen seen YouTube abonnez-vous leen Fall 94 Fall 94 Walfu Sénégal leen. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum ñëwaat nañ fii ci 94 euh, point Sénégal FM seen rajo bi nga xam ne dañ koo lëkkaleeg solo site bii di. 94 Walf Sénégal TV jaajëfal na leen share na leen ñu ñëwaat ci seen xalaat gis-gis xalaat gis-gis xalaat gis-gis nag yaakaar naa ne xam ngeen ko voilà dañ leen koy defal saa su nekk voilà kan euh, seen xalaat gis-gis fii lay neexee fii la lépp di xoyom xoyomee voilà kan euh, bàyyi leen xel bu baax a baax a baax émission bi. dafay am chaque suba voilà gars yi nag euh, am na ci ñoo xam ne. Ah, dañuy a ne décliné la décliné waaye nag ñoo xam nga décliné bu baax nga xam ne gars yi dékki abonné leen leen indil eh, émission bi émission bi nag euh, xam naa ne liñ ci li ci gars yi soxla ñoo indee guñ ko ci moom voilà parce que euh, des na ca kanam waaye nag euh, nañu liggéey rek incha allah bu ko defee li ngeen ci soxla lépp rek yéen a ci jàpp dina ñëw bu soobee yàlla mais nag da ngeen di commenter di partager pour mu gën a yaatu bu ko defee tamit ngeen di j'aime voilà bu ko defee tamit voilà Euh, mbir bi di gën di yaatu di avancé voilà waaye nag xeebuñu li nga xam ne nii voilà gars yaa ngi koy def ñu ngi leen nuyu daal bu baax a baax a baax yéen li nga xam ne yéen ci diaspora bi nga xam ne ñun duñ leen fàtte benn yoon ndax ñu moom diaspora bi rek la ñu am voilà euh, kon nag xalaat gis-gis tey dinañ indi sunu xalaat ci euh, réew mi rek ba léegi bu ko defee ñu dugg tuuti ci gis-gis voilà Euh, gis-gis ba léegi rek comme li ñëpp wax rek comme daanaka mën naa ne fi actualité bi toll rek nga xam ñëpp xam nañ ko maanaam euh, muy rek lu jëm ci Ousmane Sonko ba tey rek ndax Ousmane Sonko moom jàpp naa ne fi mu toll nii euh, depuis trois ans wala depuis deux ans voilà Ousmane Sonko am na Ousmane Sonko jàppale Ousmane Sonko moom daal ci leen di wax parce que li waral loolu mooy moom képp kot daa mel ni moo fi nekk voilà ana yeneen liggéey yi voilà lu waral loolu. xëy na loolu ci biir incha allah dina ci ñëw voilà kon gis-gis daal mooy euh, Ousmane Sonko euh, mbirum parrainage mu fi mu ne ci lan toll voilà bu ñu jógee rek dem ci beneen étape étape bu ñu jógee dem ci beneen étape voilà ba kañ te 2024 daanaka ñëw na te parrainage yi kat am na ñoo xam ñi ngi def seen i parrainage de voilà mais ñu ngi leen di parrainel wala parrainelul leen waaye Ousmane moom dañ koo kale ba léegi voilà parce que mandataire am bi yaakaar naa bu demee di jëli ji parrainage bi yaakaar naa ni ah jotu ca voilà léegi nag ñi nga xam ne ne euh, xam nañu wàll droit ak ñi nga xam ne ni euh, seen xam-xam màcc na jëm ci loolu noonu voilà euh, ndax leen lu ci nekk am na am na na koo xam ne nii am na ci xam-xam yaakaar naa ne voilà kon bu ñu xoolee réew mi fi mu toll bu ñu xoolee tamit kii fi nekk nga xam ne tey bu ñu waxalee yàlla rek ku ku ku ñi wut yàlla laa wax de waxal yàlla rek te yàlla tax xam ne leader bii fi nekk di Ousmane Sonko gisuma kenn ku fi gën a féete kaw ci leader yi fi nekk yëpp voilà ñoom ñëpp nag ay sénégalais la dañu wuti ñoom ñëpp dañoo bëgg a wuti dañoo bëgg a dem toogi ca pale ba dañoo bëgg a ñam nguuru pale waaye ñam nguuru pale daal wàññi dund gi ko wàññi dund gi voilà wàññi dund gi dund gi moom wàññi leen ko dund gi képp ku fi toog boo wàññiwul dund gi da nga sonn trop képp ko fi toog joxoo ndaw ñi ab liggéey dama sonn trop kan juru sax ngeen sol gars yi ñoo leen du mayeeti dara àdduna bi ñu jëm gars yi ñoo mayeetu dara du Sénégal rek de boo demee ci côté latinien yi nga dem ci côté nga ñëw Afrique nga dem Europe fépp a ngi tàng di jax-jaxi lan moo ko waral nit ñi léegi ñoo dem ba yeewu ñi leen yee xam ngeen ko te loolu day gën a avancé gën a jëm ci kanam kon yaakaar naa ni ku fi toogati yaakaar naa ne sa sa sa waaw maanaam sa sa ittee mooy askan bi say itte sa itte moo war a nekk dund gi moo war a nekk li nga xam ni moo di xëyum ndaw ñi chaque jour dañ depuis ay at nit ñaa ngi koy wax xëyum ndaw ñi xëyum ndaw ñi xëyum ndaw ñi voilà gaal yi ba léegi ñu ngi dem voilà ak euh, li nga xam ne ni moo di euh, Nicaragua bu bees bi nga xam dafa ubbi kan jeunes yi ba léegi gisaguñ seen bopp ci réew mi moo tax ñu ngi dem kenn mën leen a téye loo leen di voilà damay dégg ñu naan ministre xawma lan le ministre de la jeunesse ak yi gën a xam mais euh, man sax man ku ko man ku ko génnoon du ma ko xam man aw forom bu ñu ko tegoon sax dama ko xam mosuma koo gis xaw ma te loolu wax dëgg yàlla jeunesse bi lañ te jeunesse bi maanaam ndaw ñi ñooy doon ñooy maanaam ñooy doon mag ëllëg ñoo war a téye réew mi ëllëg voilà de la jeunesse boobu noonu man sax jàpp naa ne fi ne nii ministre yi nga xam ne ñoom la dénk ndaw ñi man ministre boobu war na capable lépp war na am métier war na am maanaam euh, lii nga xam ne nii moo di formation bu doy bu yaatu ci moom boo xam ne ay maanaam dana doon koo xam ne kuy créer lay doon koo xam ndax parce que ñooñu ñooy gën a mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax ndaw mais ñoo wax dëgg yàlla Afrique moom la fi xew dañuy jékki-jékki rek fal la te ka nga fal te boo demee jàngul ministre amul mec jàngul mécanicien jàngul du jàng francais doo mu toog ci bureau képp nga xam ne tey aywa. ñi am problème mu mécanicien wala ñu am problème mu menuisier wala ñu am lan la cee man bu nekkee ay xale lu dul du wax ay cest à affaire yooyu pare na ci moo tax képp ku ñuy dénk post lañ koy dénk da cee war a xam ci lu bari am ci xam-xam bu yaatoo yaatoo yaatoo su ko defee dana nekk loo xam ni euh, dana avancé réew mais ni ñuy fale nii wax dëgg yàlla ah dana waar de xëy na nag dina soppee ko yàlla baax na voilà jàng français rek sa waay nga rek voilà jàng nga français jàppale nga ma yaa doon jàppale sama parti bii dama lay fal bàyyi fi ñoo xam ne am nañ métier professionnel yu bëree bëree bëri fi na bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci gouvernement bi gouvernement bi laal wax de boo demee amuñ sax métier amuñu métier professionnel lu dul am njàngum français ak i anglais yooyu noonu nekk ci ay bureau loolu képp loolu kot daa ñu métier professionnel kenn ku nekk da nga ko war a voilà parce que bu ci réewu occidentaux yi Euh, yenn ministres yeeg yi moo tax duñ am ay jafe-jafe problème bu judd rek mën nañoo xam nañ koy saafara ndax ministre boobu bu jógee rek dina xam fi muy jaar ñooñu noonu ba mën a saafara loolu voilà kon gis-gis la daal ci 94 point Sénégal gis-gis ci 94 point Sénégal sunu xalaat voilà su ko defee suñu xalaat nag mooy euh, comme ba tey rek euh, juge bi benn la mooy ñu gën a taxawaat bu baax a baax ci réew mi voilà wax ji nag bari na ñoo xam ne dañ naan wax ji bari na jëf ji moo war a ëpp wax ji voilà ñu bari nag ñi ngi naan ah moo ne jëf nañ de waaye lañu jëf est que amul lu ko suul waaw xam nga mën ngaa jëf ba pare la nga jëf jëf nga de waaye dafay am lu koy suul te loolu baaxul loolu mooy tàngadi tuwo waaw jëf dara ba mu leer li lu wér lu leer la ba pare nit ñu ngi ko jëfal gisuñu ko voilà ñu ko ci gis ñu néew lañ voilà ñu ko ci gis li nga def lu néew ñu neew lañ voilà léegi nag loolu euh, mooy tàngaditoo ndax euh, def lu nekk lu nekk nga daj ko après euh, ñu dem ba ci biir am yeneen yoo xam ne ni wax dëgg yàlla yàq na sa loolu nga def dafa nekk loo xam ne doy loolu dañ ko war a moytandiku ñëpp nag ñëpp nag a ci yem kan daal dañoo war a bokk ndey di bokk baay di xàccundoo di dóorandoo voilà parce que réew mi nag wax dëgg yàlla fi mu toll ni actualité bi fi mu gën a jëm mooy Ousmane Sonko parrainage bi parrainage Ousmane Sonko bii daal moom la nit ñi gën a gën a gën a gën a gën a bàyyi xel voilà kon nag mu nekk loo xam ne nii war ngeen koo xam bu baax a baax a baax voilà euh, wax dëgg yàlla bi daal ñu baree baree baree daal wax dëgg yàlla moom lañ gën a gën a gën a gën a bàyyi bàyyi xel bu baax a baax a baax mooy actualité bi nag voilà kon nag yaakaar naa ni euh, Sénégal euh, réew la moo xam ne nii dañ koo bokk la ñu waxoon rek moom la ñu wax ba léegi nañu bàyyi ñëpp bokk parce que loolu mooy avancer réew mi mooy tax réew mi tamit démocratie bi mooy tax maanaam yu bare bare bare bare yoo xam ne nit ñi ñu ngi ciy ñaxtu di ko wax euh, duñ ko wax voilà parce que tamit euh, boo gisee nit ñi di wax euh, mun maanaam ñoom du ñoom yàllaa leen di wax loo yàllaa leen di kenn ñëwul ko bokk te réew mi dañ ko bokk doon yéen kot kot yaakaar naa du ngeen am ngeen jiite waaw parce que da ngeen am ngeen jiite am ñoo xam te ne leen doy loo teg leen ci kanam kan yaakaar naa da ngeen leen a war a defar liñ bëgg voilà loolu mooy équilibre bi nga xam ne nit ñëpp dañ koy sant ci seen te réew moo la maanaam réew muy doxee noonu rek moo lay gën a avancé voilà yaakaar naa daal am na yoo xam ne moom euh, xajutul fii ci Sénégal voilà ku xam euh, adduna bi ni muy doxee nga dugg di recherche di di di gëstu da nga xam ni adduna bi moom weesu na fii ñu ne moom wax dëgg fa yàlla vraiment ci lépp nag. kon nag 94 euh, euh, point Sénégal FM lii leen indi loon mooy xalaat ak gis-gis xalaat ak gis-gis nag dañ koo boole voilà bu ñu duggee ci gis-gis génn ci gis-gis dugg ci xalaat voilà kon nag nuyu nañ leen jaajëfal nañ leen bu baax a baax a baax a baax ànd bokk ndey bokk bàyyi xàccandoo dóorandoo nañu bàyyi ñëpp bokk. Fall 94 Fall 94 Walfu Sénégal seen seen YouTube abonné bu leen Fall 94 Fall 94. Walf Sénégal sin seen YouTube abonné leen